قال الذي ربى واني وماني واكرم به ربى رجيت عن المولى قال الذي ربى واني وماني واكرم به ربى Hadim Allah zay kii comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi fii ci euh, daral euh, bu euh, bu Seras ngir préparer màggal Touba bi ànd ceeg Modou délégué Amar ma ngi noonu nag di liggéeyal ndeysaan sëñ Touba mais dafa am lu ma wax xam naa ne li ma wax nag ma baaxee leen ko bàyyi leen ko yéen moom ak téléspectateurs yi moom mu waxal ko boppam Modou Mamoun mais Modou délégué waaw maas sant sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaw naka coono yi waaw ah, xaar bañ pare ci daral gi te daa mel ni sëñ bëtee aji de <laughs> ah, waaw looy laajte noonu waali la ñu wutal ay nag rek pour mu yu mu yu ah, waali wutal ay nag non waali waali moo jënd xam nga ñun ci ndigal rek la ñuy dox waaye moo ñu yónni rek pour ñu wutal ko ay nag waaw mu yóbbu ko ci ku tedd ki waaw moom waaw xam naa dinañ mën a xool lu tolloot fii trent nag rek ñu génn ko fi yóbbu ko Touba incha allah ngir bés bi waaw waaw ngir lépp ngir bés bi dañuy tànn yi fi gën a mag rek comme genre bii rek non wow ma ko sax waaye mu rile dañ ko maa xam na xam na li mu war mu ngi jëf nañ ko gën a yokk ay ñaan rek Sëñ Tuubaa defaral ko tawfeex yéenam ji mu am ci yoon yi mu matale ko loolu kese la ah bu ne li sa xool ne nga war a sasoo rek <laughs> ay waay ñu mais jomaay jomaay nañ ñëw ci fii waaye ñu defaral seeraas ah waaw màggal gi xam nga ñëwagul dina def ay jéego ndax ma ngi joxe ay paas mu ngi dimbali ay nit yu war a dem ah? li ci des nag des na màggal gi des na ñu ngi ci lundi mardi mercredi donc euh, fii ak at ba jeudi màggal gi des na moom ba day joxe paas ba bis bi di joxe ay nag tamit ba bis bi ngi ci ah dañ ko ñaanal yàlla mu yokk rek gisoo ni ñu ngi nii ñëw pour jëndal ko ay nag yoo xam ne moo nu yónni ah enseigne petit waaw kon kay ma ngi ci ah xam nga délégué ko ko mën a dugaloo ci dara solloo ko équipement bi hmm? lu jëm ci sëñ Tuubaa rek nga ko mën a santee mu def ko ah donc kon ñu ci sëñ Tuubaa rek moo jaral lii hmm. yow xam nga ne boo boo ba ma tëddoon ba guddi yaa ngi dégg nga woo ma ne ma kaay dama ma ca dara ga wala heure bi ak taw bi xam nga ne du dem de waaw Sëñ Tuubaa rek ma mën a déplacé loo ci lu jëm ci Sëñ Tuubaa waaw ñu ngi ci dañ jéem waxtaan ak gars yi ñu jaay nag ñu dem yóbbu ko Touba buñ ci mënee boole ay laadum sax parce gis naa fi ay laadum ñu boole ci ñaari laadum yu am solo waaw ginnaaw sëñ bi moom nee na bul naw bul naw gileem ba xeeb ganaar kon dañ ci def lépp rek lu nu am. waaw yaa min mala ibada jar na ah? boobu jar na sëñ bi bii nag

mais délégué mu ngi taw délégué fanweeri nag yi nga war a jënd xanaa war na mot mais mu ngi taw de ah. sëñ Touba mun na lépp. xam nga ne kii muy taw ñuy daw naan taw bi. waaw ah. ki waral bis bi seexul xaddim juróom-ñaari at yu teg ay weer mu nekk gabon muy taw ci kawam. ah mu koy dékku ndax jaam yi. Ah. ñun lu ndaw lii di taw suñ kaw ñu naan dañuy daw di làqatu ci oto pour lan waaye loolu mooy. saxal day day. da ko yow doo nitu àll de. xadimun lahu

ونبياني يا لي من ربي ولوسيس فأفضل علي اليوم يا ربي بالمنى بفضل وخير يخجل الوبل مصطفى بسنة البيضاء يا من وحدك الوصل وابل المسارب والعباد ليصف كوس الغم والتقليد يا عبادات نسيان رب الورى الباب

Modou yàlla dogal na mu ma def lu ma metti mhm. lu ma neex rek la may def ndax bés bi sama waajur yi génne àdduna nam ci taxawee muy sama waajur bu góor di sama sœur moom ba ci sama yaay mhm. Modou bi ñu àndee dafa kawe trop mhm. donc je tenais à te le témoigner bi nga xamante ni frère nga damay dégg tout le temps muy wax say wax da xam ni ku ko sopp la ku ko jàpp la ku ko téye la te maa ngi ñaan sama diggante ak moom wéy wéy ba ñu jëm nekk ay màggat incha allah ci yoonu màggal gi maa ngi ko ci ñaanal jàmm gudd fan ak wér tawfiq ku bare bare bare lépp lu mu liggéeyal Sëriñ Tuubaa mm. sëñ bi moom am na pay yàgg-yàgg mm. dina ko fay donc vraiment je tenais à te dire que Modou Amar mm. maag moom du showbiz non non non su ma sañoon sax Modou du génn ci internet. di tott kenn wala di waxi lenn. mais dafa mën a wax sama yaay ne ko. soo génnee wax ci waale midi midi quinze ma génn boobu laa ko noppee tere te xam ni boobu. dimension bi la quoi. Mm. ma ko ñaanal jàmm cat buñ ko dugg. di ko ñaanal yoon ji mu jëm yoonu màggal ndax moom bu màggal ñëwee xaw a mel ni ku. <laughs> ku ànd ak waaw bi yàlla na ko yàlla defal jàmm mhm. defal ko mboolum jullit ñaan sénégalais yëpp mhm. képp ku ci dem di màggal yi ci nga xam ni Tuubaa moom soretut mhm. waaw ñu raam nànk rek ni tôt ou ma dégg dal nànk dal nànk dal mën naa ñàkk sëb yàlla waaw nañu raam nànk rek ñu dem màggal yi ci jàmm ndax màggal gu ren gi moom dafa nuru ah màggalu defaru ba faw faw faw faw parce ne xam ne ni mu dëgëree donc ku ci jiyaat rek ku ci rayante def ci sa alal rek ni euh, sëriñ bi dina ko ful bu soobee yàlla ma daal maa ngi lay gërëm bu baax a baax dem contentement jàkkaarloo yow tey jërëjëf ci jërëjëf Mar jërëjëf <laughs>